un franc succès déjà pour euh, la petite catégorie parce que jamais le Sénégal n'avait franchi tey le premier tour dans une Coupe d'Afrique des Nations U17. U17 tout voilà donc euh, chapeau à Serigne Saliou Dia aussi tey à la direction technique parce que ñoom ñooy chargé de la petite catégorie donc euh, mais euh, une petite épine bi ñu gis tey ci set Coupe d'Afrique là moom mooy ces tests IRM yi nga xam ne ñëwati nañ waaw donc on parle encore toujours de l'âge mhm. récemment dans cette CAN U20. Mhm. ñu ngi doon décrier tey U17 U17 U20 vraiment maa ngi ñëw maa ñëw ci CAN u bi en Égypte ñu ngi doon décrier quelque part l'âge de notre gardien Landing euh, également notre charnière centrale tey dans cette détection là est-ce que bu ngeen di jëli xale yi c'est vrai que am na stage yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy organiser au niveau de de la Petite Côte Sénégal pour xale yi mais réellement xale yi seen âge la ñuy footballé parce que aussi <laughs> euh, le tey y a des équipes parce que fraude ñu ngi koy waxaat boobu ba léegi donc tey ci test IRM yi ni tey est-ce que yéen yéen a ngi seggaat bu baax a baax wala boog da ngeen di bàyyi mu sedd parce que aussi y a de ces garçons boo leen di xool tu as l'impression que voilà ça dépasse largement merci beaucoup seulement li ma jaaxal mooy euh, ñun sénégalais ñoo bëgg tam suñu bopp dëmm. comment. merci beaucoup vous me dites ndax dañuy bàyyi mu sedd les tests IRM équipe yi qualifiée yëpp kaaf moo leen ko defal ñun ñu ñu yóbbu ñëpp 23 yi ñu yóbbu yëpp ñu jàpp ne IRM bi qualifié na leen ñoom ñëpp pourquoi ñun sénégalais. ñu accepter di mettre en doute li nga xam ne nii kaka def du sénégalais kaaf moo ko mandaté. pourquoi d' abord may ma doucement bu ma dagg da nga may dégg da nga may dégg. non pourquoi d' abord ñu recalé balaa Sénégal. recalé wuñu kenn ci ñun. Sénégal recalé oh oh doucement ñu recalé Sénégal moo leen recalé. d' accord le docteur Ngom. qui mm. responsable de la commission médicale. moo suivre équipe bi moo équipe ñuy def IRM fédération jël xaalis di fay ñu leen di defar IRM pour que li ñuy woote ñun ñu jiitu ci gàcce la ci ñun Sénégal fédération ñu yóbbu jël sélection yóbbu leen pour ñu représenter ci senegal ñu recalé leen na leen dañ leen ñi ngeen dugal ëpp nañ fukki at ak juróom ñaar li ngeen waroon a wax mooy rafetlu liggéey bi ñu liggéey pour am loolu. mais nañ koy rafetlu si kaw ñu euh, teg ko ci yoon quand même waaw mais teg ko ci yoon qu'est-ce lan ngeen tuddee teg ci yoon. ñu respecté âge comme ni ko Grégard di waxee. waaw c'est important léegi jox ma benn Séné équipe Sénégal U17 23 jours ñoo dem seen test 23 jours yëpp. ñoom ñëpp jàll nañ. c'est valide bien sûr. mais waaw léegi doucement doucement. Euh, may ma may ma euh, non non Ousmane Ousmane faut pas être sur la défensive. d'accord non je suis pas sur la défensive. moi je veux juste questions quand il te pose des questions yow yaay def nag tu es notre invité mm-hmm. on va discuter calmement quand il te pose des questions il a le droit de te relancer. je dis je dis pas le contraire mais je dis je dis la question est quoi. laaj ko Grégoire mi <laughs> ne ko Koos. la la question est quoi sur les vingt trois may ma may ma may sur les vingt trois joueurs yi dem U17. URM bi jàppul kenn ëpp na. ne suis pas dans ces vingt trois qui sont actuellement en train de disputer vous êtes sur nañ. vous êtes sur qui je suis parce que il y a actuellement des sénégalais yoo xam ne ils na comprennent pas tey ce principe des IRM rek dégg nañ recalé nañ ñenn ñi. pour ñoom lu ñu jàpp la force c'est du côté de la fédération donc li tax ma poser la question c'est pour que yow nga préciser leen ñëw lan moo waral loolu noonu mhm. man amul dara loo ma ci mën a expliquer par rapport ak ces 23 qui disputent parce que xam naa ne seen IRM jàll na ñoom ñu ngi disputer bu IRM bi jàllul. waaye léegi kon man lan laay tontu fi may ñëw moom mooy ces tests là sur le plan de la laa lay wax. waaw avant yéen seen docteur Ngom boob noonu di def ces tests IRM là. waaw yéen euh, ci seen biir. waaw. war ngeen a xàmmete un joueur qui a 17 ans qui ne l'a pas këyit yi léegi dafa bëri donc euh, actuellement sur ce plan de la détection là on par des enfants qui ont tey qui n'ont pas encore 18 ans un joueur qui n'a pas 18 ans tey boo koy testé xam nga ni mu demee ñaata yoon ngeen def ay stage c'est ça que je dis mais pas que tey ñun ñooy taxaw tey Sénégalais di en tant que ñun di tamaat suñu bopp dëmm waaw mais euh, mon ami reprenons les choses benn par benn Sénégal dafay jongante ji U17 ñu kaaf teg ay testam docteur yi boppam képp ku fa ñëw indi say mu teste leen bu amee club bu am euh, nation bu am ñett lu ëpp ñett ñu ñu recalé mu dàqale boo amee ñett dañ la bàyyi mais ñett ñoon doo leen remplacer ñun Sénégal suñu ñaar fukk ak ñett ñi dem yu wuñ ci kenn. mais dafa mel ni Grégoire comprendre loolu mu wax mais mais xaar xaar ba reformuler loxo bu fekkee comprendre loolu. bon est-ce que à la base à la base par exemple bu fekkee jeune joueur euh, tout petit est-ce que am na ay tests à la base. au niveau des. au niveau de la détection voilà. est-ce que euh, de la détection xam nga ça ça devient les clubs et les centres de formation. mais est-ce a mais ce travail là est-ce bien sûr la supervision bien sûr de euh, de la direction technique nationale. ok test yooyu moo indi équipe yi mais ñun au niveau de la fédé dafa am benn matuwaay bu ñuy jël avant xam nga matuwaay bi mooy lan. Mm-hmm. du ñu jël risque mu jël joueur boo xam ne nii wóor nañu ne duñ ko jaaralee test dañ koy jàpp parce que dafa frauder sur âge loolu moo waral IRM depuis quelques années amatuñ ci ñun problème parce que commission médicale fédération day def fi IRM joueur yëpp entraîneur bu jëlee équipe am ñu yóbbu leen ci centre. de forma centre de regroupement wu fédération bi Jules François Bocandé wala président Youssou Ndiaye ba mu def sélection ñooñu mu sélectionné dañ leen indi fii on a la chance au Sénégal mën nañ des test IRM d'accord d'accord